Assalamualaikum, mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli seen seen seen ñu leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ñu ngi leen di dellu di jaar bu baax a baax a baax tey nag ñu bëgg a ñëw wax leen lu tax ñu jàpp ni troisième mandat mënula am parce que ñu bëgg nañu comparer cas Ablaye Wade bi ak cas qui suis présent. ni muy président makime mais xam nga Abdou Diouf dafa yor gi mandat yu 5 ans d'abord donc ginaaw bu mu agalé bu Senghor bi dafa def euh, dañuy dafa nek dafa jité 83 ans mandat a ans mu 80 mu élection 88 gagné. Il réew en ba Il a fait élection mais en 92 1992 mu Ben code consensuel nous avons le la code Kéba Le code Kéba Mbaye Bob eu un mandat bi 7 ans kon 93 ba sept ans 2000. Les l'élection en 2000 c'est la que j'ai gagné en 2000 j'ai gagner gagné l'élection. yi kon loolu que la nguuru Abdoulaye 2000 mais après il faut faire dafa législative yi ñu ngi en 1998. en 98 kon dafa que bi mu le parti socialiste nekk majoritaire Moi J'ai 18 députés j'ai am 11 députés loolu mon le 23 janvier 2001 c'est une nouvelle constitution de référendum mais entre temps il y avait l'amendement Moussa Assis, c'est le de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2001 mu un référendum une nouvelle constitution Quoi que mon constitution mauvaise parce que Ben bi fi nekkoon mooy bu njëkk bi bi fi sama bàyyi woon mu nekkoon le constitution le 7 mars de 1963 moo nekkoon bi fi nekkoon kon bi fi ñëwaat rek li si des diggante ay révision ma doon am beneen bi fi ñëwaat mooy bi Abdoulaye Wade di defaraat bu bees bi muy le 23 janvier 2001 boobu nag moo fi nekk ba léegi nii moo fi nekk diggante boobu ba léegi ay révision la ñuy def beneen constitution amu fi euh, diggante bi nag. En 2002, il y a eu les élections municipales et rurales. En 2002. En, Mouron a eu l'élection, en 2007. Mais en 2006, il y a eu une révision le mandat sept ans a eu 5 ans Nous en 2007 en 2012 y a eu une élection en 2011 y a eu 5 ans une révision a eu 7 ans c'est la Macky Fallu en 2012 Macky Bimou mu 2012 dafa référendum le 20 mars 1900 euh, 2016 le 20 mars 2016 le référendum mais référendum dafa am lu ko ëmbaale si am lu si yokkaale si si constitution si nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs nul ne peut faire te yow nga yow ya en 2012 en ko 2019 kon ñaari a un ba nopi li nit ñi parce que ablay Wade su bi mu forcé bi mu forcé en 2012 gaay fippu ñu conseil raison c'est parce que ablay Wade bi muy en 2000. constitution bi ko faloon mooy bu 7 mars 63 moo faloon Ablaye Wade Ablaye dafa falu ba noppi nag en 2000 euh, maanaam en 2020 2001 mu créé beneen constitution bees kon ça veut dire mandat bi amee ko si constitution bii or que Macky Sall mandat bi mu am ñaari mandat yëpp si benn constitution bi la am moo di Ablaye Wade bàyyoon ndax diggante benn constitution am révision moo fa am kon ça veut dire que mënatu la exercer. lu ëpp ñaari mandat kon ku bëgg a bu Abdoulaye Wade ak bu Macky Sall bi bokul je pense que ñuy wax dañuy waxee sen sen sen, seen bakkan mais en toute vérité xam nañ ni moom nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs te li mu am ñaar yëpp mandat la te si benn constitution la ko amee beneen amu fi révision moo fa am diggante bi xam ni fi mu ne xayaan ku dégg sa mais jeex na waaw te man jàpp naa ni xaw ma fu conseil constitutionnel mën a jaar fu ab juge jaar ba magistrat ba meuna a ubbil benn bu meuna exercer benn mandat gisuma ko ndax di fi am diggante 23 janvier 2001 muy constitution boobu Ablaye Wade tëggoon ba légui ni ay révision moo tax mais constitution bees amu fi waaw kooku ñu bay xel bu baax a baax baax. kon li daal naa ko indi leeral ko di leen xam ne daal mbir maa ngi noonu kon ñu jàpp ni daal man te moom dafa am lu mu wax ndax déglu naa ko mu ni je ne ferai moins que mes kon du ma def lu gën a néew li ñi ma jiitu def kon yaakaaruma ni dina def loo xamante ni dañ ko si ngàbbe man yaakaar naa ni bu paree dana rafetal génn génn bu rafet ba nga xam dina am woy bu rafet te loolu mooy dëppoo di nga xam ne ni moom am kon Sénégal li fi am rek mooy nit ñi des fois dañuy gis dëgg teg seen tànk di demee bakkan te loolu defe naa ni bokkul si li nga xam ne moom moo moom moo gën kon mbokk yi li lañ doon indi di ko leeral di leen gërëm nag leen wax nañ ñëwaat nag yéen si yeneen i mbir ndax léegi rek ñu may wax ne il paraît que il me semble que Ousmane Sonko mbokk la si man bokk nañ si cosaan si wàllu Fuuta danaa si amootaat ay gëstu yu gën a leer incha allah eh, bu bay naa